Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen ah tey nag gis ngeen ki ñu toogal ah Papa Boy Djiné waaw yaakaar naa xam ngeen ko bu baax a baax mu bëre daaw ak Papa Yade ñàkk combat ren gisaguñ ko xamuñu lu xew dafa amul adversaire wala qu'est-ce qu'il y a wala dafa nekkul di entraîné ñu bëgg bëgg nag ngeen xam ci lu leer rawatina rawatina yéen ñi nga xam ne ay soppeem ngeen papa maa ngi lay nuyu di la ziar. Eh, Bakar maa lay fay eh, di nuyu sénégalais yi. di wax ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di ñaan jàmm si réew mi di ko ñaan Serigne si ak mag ñi si réew mi ñëpp waaw daaw laa gëj a saison bi tijji na mais yaakaar naa ne dawagul saison bi dawagul instant mi ngi dox waaw instant bi day dox waaw. waxoogul daal waxoogul. war daaw nga bëree tam ci dikka tuuti rek ci lu gàtt yaag papa yaag papa yaag da ngeen nekkoon ñaari yoo xam ne ni dañ leen doon tëkkale ci wàllum làmb ngeen bëri mu daan la gars yi ne papa dafa xaw ma lu xew bu ñëwee ci làmb ji day mel mu xaw a jaxasoo xaw ma pression mooy ne sa bopp bi wala lu xew papa. waaw sant yàlla rek comme ni ma koy waxee chaque jour rek ñun ay jullit lañ te ay doomu aadama lañ may ñu suñ bopp yàlla moom moo yor ndam duma ci taay di wax. waaw di félicité Papa Yade di ko ñaanal ndam yi jikko ci barki bi di wax ne làmb mu suñu kanam man xale laa nekk kiri wàllu juddoo fii Gunaas Géejawaay damay wax ne saa su nekk rek làmb ju nekk ak ni nga koy préparé ak ni muy ñëwee instant bi ñi ma war a daan ñoom mooy daan ñi ma bëreel ñëpp ay ndaanaan lañ ci làmb war nañ ma mën a daan war na leen mën a daan waaye làmb ngi suñu kanam man waxatuma instant li ma weesu li nekk sama kanam loolu laay jéem a reyante instant bi waaw ndaxte olof daal lu wax ne nit boo faqa solo faqa waat boo faqa soo waalaatee faqa soo tey. maanaam daal ku fot ci na benn foot ci ñaar wala boobu bu ñun da bëgg lekk. bëgg lekk nekk instant bi nag dafay parce que mun naa ne saison saison man bu mosaan di tëj la si ñi njëkkam am combat ci mais saison bi mu tijjee ba léegi nii. yaakaar naa ne combat yu bëri daw na fi amaguma combat waaw loolu nag du du du promoteur du problème mu adversaire tamit man may toogaat di xoolaat ban yoon laa war a jaar parce que man dama am si làmb man xamal naa ko sama bopp bu ma ko kenn waxul ndaxte su ma xoolee sama bopp man damay gis sama bopp ci mbër yu mag yi man sama jëm bopp kon war naa mën a toogaat xoolaat sama entourage xoolaat li nga xam ne moom laa war a def surtout ci li may gën a may ndam. ma nekk ci loolu te maa ngi ci ak samay mbokk. dangay gis sa bopp ci mbër yu mag yi suma ko déggee sax veut dire que mbër yu mag yi eh, fa ñu nekk liggéey mu leen fa est-ce que papa wóor na ko ne moom ci bëreem ak ci li mu man est-ce que am na qualité ko yóbbu ci mbër yu mag yooyu mu gis fa ñu nekk mën na faa dem ci qualité bi moom am ci wàllum bëri ak làmb. man de ax ah, dëgg yàlla ah bu fekkee ci côté ci côté bëri jiitu ma sama bopp ci côté bëri ci làmb ndaxte ñi ma xam nag laay wax par rapport ak ñi nga xam ne arène lañ ma seetaan. mais ñi nga xam ne xam nañ Papa Boy Djiné seetaan ko topp ko mbabat du ma werante ci mun naa bëre wala na ma bëre ci cadre fit xam naa ne làmb lu ko mën a gérer ba dem ñibbi jafewul ci man déedéet. Mm-hmm. kon est-ce que ñu ngi contacter papa bi mu jógee ci defet boobu mu amoon daaw. yow sànq rek bi ngay coupé ak man promoteur mu may woo mm-hmm. ñuy jokkoo man ak moom te boobaak léegi ñu ngi jokkoo promoteur la di ko ñaanal jàmm ak salaam. li mu bëgg moo xam suñu borom defal ko ñu ngi jox ko man ak moom mais nag comme dara sotteegul duñ mën a wax diw la wala diw la wala diw la waaye yàlla mi nga xam ne moom moo moom moo yor mottali yàlla na suñu borom mottali lépp rek mu sotti ak jàmm ak salaam incha allah. pour ban combat ban adversaire comme waxu mën a wax promoteur bi. waaw adversaire bi nañ ci def code rek. code ko daal. waaw ñu def si code rek. est-ce que ko codee du du du maanaam doo code code rek gars yi xam. waaw non nañ ci def code rek code moom bu bala gars yi bu ñu ko bëggee xam rek nañ tapé gmail point com arobase Ibou Sène. Ibou Sène ah. <laughs> am na solo mais tey làmb gis nañ fi say ay morom yoo xam ne ni ñu ngi ci làmb ji ku mel ni Pa ak Ada bër ki dem bëri na ak bébé bismi daanante nañu ak seeni morom yoo xam ne ni ñu ngi ci làmb ji yaa ngi dégg bëri nañu ak koo xam ne ni tamit bër ki démb ñàkk na combat biir way parce que muy Tapha Mbeur waaye itam ci lu ñu amaat ci ay xibaar mooy jotaat na combat bi par recours maanaam gagné waat na Alioune Seye Junior par recours ñooñu noonu looy wax ci ñoom parce que jàpp nañ ne ñooñu say adversaire la ñu am na ñu koy wax. waaw ñooñu comme li may wax gars rek ñun ay génération lañ ñooñu waaw wax mbaax waaye jàmbur nag yàqul dara ci sa mbaax ay champion lañ ñu ngi def seen i preuve ay ndaanaan lañ daan daan nañ fay champion su mel ne Ada Fass ñu ngi koy féliciter ci ndam li ma am barki démb. di encourager bébé bismi xam nga di ko wax làmb noon la kii bëre moom mooy daanu waaw ki ki ko ki ko daan bërki démb bi mu fi mujjee ba maar dañ ko daan yaakaar naa nit bu yoroon daan kon moom keroog waaw du daanu bi muy bëre ak Onde le Fou Ada ndam nag yàlla moo ko yor ñu koy ñaanal ndam li jikko waaw di encouragé waat bébé bis di ko wax làmb noonu la gën a góorgóorluwaat yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp waaw Tapha Mbeur bu fekkee bëri naa Junior arbitre joxe jël ci bés bi su defaatee recours CNG jox ko ndam loolu duñ ci mën a sori ndaxte Alioune Sèye Junior am na staff te am na ay mbokk te am na ñu àndaloon ci làmb jooju l'essentiel ñun li ñu leer ba leer mooy keroog bi ñuy génn stade ñun ñu yóbbu drapeau bi te man de wax dëgg neex yàlla du ma benn mbër def recours mais man personnellement man papa man ay recours gondiwu ma daal. yow doo def recours. man ay recours. Eh, gondiwu ma. non non. ah bu daanee moom jàpp ne moom moo daan ñu xañ ko ndax moom est-ce que amul droit def recours yow loolu bu la arrivé woon est-ce que du def recours tamit. man sama premier combat. sama premier combat. man ak Saloum. Saloum 2. sama premier combat. bi ma bi ma ñàkkee. pourtant ñu nekkoon ci làmb ñëpp. kenn ku si nekk. xam nga ne Saloum 2 dafa mbëkk Papa. li ma la wax nii sama papa Malick Thiandoum mën na ma seede bi làmb ji jeexee moom moo ne ma mun naa la génneel vidéo bi nga dem CNG nga def recours parce que yow carrière nga war a def te am na yenn défaite yoo xam ne du jaadu rawatina keroog ci bés bi ni nga mel li nga indi seesaat bi yëpp ñu kase verdict bi barki yonent yi moog sam benn garant maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm commando mi ngi Mali day sonni si man lépp lu ma bëgg soo ba ngoon jot su ma amee combat da ciy dox di ci wax ñoom ñaar ku ci nekk róon wax nañ ba sonn ma leen bëgguma recours. yow daal bëggoo recours. man gëwumay recours. kon Tapha Mbeur lii ñu ko jox ni yow jàppee woo ko ndam xanaa nga bëgg a wax. man personnellement laa wax man sama waxuma xalaatu kenn de man gëwuma recours man su ma nekkee xale nekk ndaw taamu combat ba jëlal ko suma bopp. Hmm. yee su ma ñëwee suma si ñàkkee damay gëm yàlla dem toog liggéey waat àndaat samay mbokk. man Tafa dama seetlu ci say wax chaque jour da ngay xaw di tituwaay Tafa mbër di wàññi ay point ak yooyu lu tax lu ngeen seq wala da ngaa bëgg jot ci moom. non sequñu dara jàmm lañ ko si lañ koy ñaanal te jàmm lañ koy yéene yow eh, man lu ma lu lu may yéene doomu aadama rek ci lu bon yàlla na këpp suma kaw. ci côté làmb ji bëri bi laay waxee quoi. dama moom laa wax. ku mën a doon waxuma la moom kese de ak ku mën a doon. bépp mbër bi tax ngeen man recours gondiw ma man personnellement laa wax barki Serigne Touba Mbacke man su ma bëree ak nit arbitre jox ko man nag hmm. Lassane Der. Lassane Der. Lassane Der pourtant barki Demba am na combat bu amoon Iba Mar Diop. waa ji non combat bi bi bis ak kii nu mu tuddati mbay guy gi. mbay guy gi bi mu waree bébé bis bi ñaari coup ko dóor pourtant arbitre siffle jox ko victoire sama combat ak Lassane Der bu la neexee nga duggaat si YouTube bi nga seetaan ko Lassane Der dama ko bëtt wër ko ndomba commencé dóore ko Ibo Ngari mu ngi naan jeex na nag jeex na nag jeex na nag te pourtant arbitre daf na ñu bëriwaat temps bi jeex mu jox ko victoire la moo tax mënu moon def recours mais gondiwu ma ay recours gondiwu ma yow ñu jox nit victoire mu ànd ak ay mbokkam ñu zibile télé yi ñëpp gis na yow daan nañ la nga dem bind ay recours ñu jox la victoire kan mooy yëg ne gars yi dañoo tal seetaan ay retour gars yi duñu seetaan ay retour <laughs> mais yow yow Tapha nag yow nag papa sax laay wax yow mais moom tey parce que dafa jàpp dañ moom dafa recours ba mooy def na ne jàpp na ne kii def na kaat appi Alioune Sèye bii nii pour te dire vrai nii may wax ak yow hmm. ngi wax ci yeneen combat yi ñu koy proposé nii. feete na victoire am di ko souhaité anniversaire am bii passé xam nga di ko ñaanal suñu borom may ko jàmm may ko gudd fan. ak bépp mbër boo xam ne yaay écrit waalo moom nekkatul sax si ay cadre recours Alioune Sèye Junior. Hmm. cadre fu mu nekk fu mu toll nii mooy ñan la war a bëreel ñu si kaw ñu bëri ak moom parce que ndaanaan la hmm. waaw. fi mu nekk nii daal loolu moom moom pare na ca moom. non. nee naa la gars yi amuñu temps wu di seetaan ay retour mais yow Tapha Mbeur moom pare nga pour lekk avance am. waxuma la ay retour de. waxoo recours retour laa wax. pour ñu seetaan ci li nekk ci ginnaaw gars yi amuñu jot boobu. <laughs> Tapha Mbeur da pare pour lekk avance am xanaa. man géejawaay laa dëkk man. Tapha Mbeur dëkk parcelle. man géejawaay la dëkk. pare nga pour lekk avance am. géejawaay laay tiitaroo. Hmm. géejawaay laa am rawatina mbir na gunaas bi ma yeewoo. Hmm. man mbër boo xam ne dëkkoo géejawaay. Hmm. ak kullu mën a doon. amuñu benn relation man ak yow suñ ma joxee sa avance barki yonent yàlla Muhammad waaw yow ñu jëndee ko si ciseaux defaree ko affaire yi. Hmm. billaahi. <laughs> dégg naa la fan yi nga koy tooñ naan nga ngay wax naan sax xaw ma ban mbër sax nga mbër boo xam ne boo bëree ay baaramam di damm ak yooyu dégg dafa mel ni wax nga fi wax yooyu fan yooyu. Eh, waaw loolu moom lu passé la lu lu nekkoon suñu xel la ñu wax ko je que man loolu laa gis te lool la ñëpp gis. waaw muy moom bu reetaanee damm. bu xoolee damm bu jooyee damm. moom Tapha. ah yow wax de. <laughs> ah moom de moo fi bëre mais xam nga moom rek mbari yi bëre damm waaye yow moom xam naa ne daal ah yow mii man tey papa. papa dafa mbër yaa ngi caa a bëri a man de man de man de leen rek laa lay dénk. Hmm. barki yonent bi laa làmb làmb làmb seetaanaguma wala wala may xool sama moroom bu may naw ci ci côté fit wala ci xeex. Hmm. wala ci bëri déedéet. barki seer Touba laax c'est nag yàlla moom mooy ñëwee nu ko neexee des fois mu ñëw ñàkk waaye man leer na ma leer yàlla suñu borom bu yàlla defee jàmm si kàttanu yàlla nañ ñu may gudd fan ak wér yàlla ibbil ñu bunt yi xam nga ñu dajeeg ñi nga xam ne tey jii ñoo war a teg loxo ci affaire ñu teg seen loxo. wante xool damm beeg gëm damm beeg yooyu ma jaaxal. waaw loolu moom moo am. yow maanaam tey jii nii. nu mu def dam moom. to nekkul cadre tooñ quoi. on est ñun ñoo far ñun ñëpp ñun mbëri mm-hmm. ñoo bokku ndey ñoo bokku baay mais li am rek loolu la ñu wax. yow yow si si si si si si si si ñaari saison xaw ma xaw benn saison. Mm-hmm. nga dem si ñetti yoon. loo loolu loolu sax xam nga du du athlète athlète tamit xam nga bu a def carrière day moytu mm. waaw loolu nag ci ñàkk xam xam nga li nga war a def la ci biir bëre ay xeex ak yooyu noonu. waaw maanaam looloo koy dam quoi pour yow. waaw mais tamit su fekkee yow jàngoo xeex da ngaa màgg xeex. c'est loolu ci làmb ji ñi mën a xeex nii nii en général li ñuy damm ci làmb bariwul de. Hmm. wala dañuy dañ lay daan dammaale soog a ñibbi. daan la. damm dammaale soog a ñibbi. daan ba pare dam waaw. mais ndam jar na damm nag de tafa. waaw déggoo mais xam nga yow da ngaa daanu damm yóbbaale amoon dam hmm. mais nga bañ xeex avant làmb soo yoree looy xeexalee ay supporter kay nga bàyyi ba dugg si biir géew bi xeex ak sa adversaire waaw. mais ah tey à part parce que loolu leer na mais a part Tapha Mbeur wala a part adversaire yooyu nga fi ñooñu fi tudd Tapha tey nu mu gisee làmb ji rawatina géej waay nga xam ne fi nga dëkk parce que temps yi comme ni may wax rek drago bi daa mel ni moom xaw leen jig macha allah équipe yi ma fi gis yëpp moom chaque dimanche moom bu ngeen moom def affaire dem ñibbi xaw ma lu bu baax. di ñaanal tamit waa 100 pour cent bi ah ñëpp groupe whatsapp bi bépp mbër buy tax ngéem ngay yeewoo géejawaay di jël lépp di ko teg ci loxo Balla Gaye numéro 2 la de guerre guy gi saa kees parce que ñooñ ñooy suñuy mag te ñoom ñooy suñuy royukaay man personnellement man sama bopp ñoom ñooy samay royukaay ñooñu nekk fii nga xam ne ñoom ñoo nekk suñuy mag dëkk géejawaay nekk ay mbër xam nga mbëru géejawaay yi dañoo ko doon benn surtout mbër yu ndaw yi ku xewle ñu bàyyi gars yi bàyyi lépp ñëw teewal la di féliciter Baye Mandiaye numéro 2 ak Mbaye xam nga ci ndam yi nga xam ne moom lañ am ak mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk géejawaay yàlla dañuy ñaan saa nekk rek buñ jéparee jógee géejawaay dem stade suñu borom may ñu ndam mais li ma la mën a xamal ba xamal daal mooy ren ah géejawaay dina neex dina xumb dina dagan. dina neex dina xumb dina dagan. maa la wax loolu kay. si kàttanu yàlla kay. ah, ah, ah. ngeen commencé moom doy na waar moom. neex dina xumb. te lu waaye def laa la wax lu waaye def dem stade ak jóge stade dina dagan hmm. Balla Gaye de Boy Niang dégg nga coow li bari na ci fan yi war nañoo bëri ñoo bari nangam sangam coow loolu noo koy dégg ak loo ci xalaat en tant ku dëkk géejawaay. man man géejawaay laa dëkk. Hmm. fii laa hmm. Balla Gaye suma mag la suma mbër la. tey man benn benn li ma koy li ma koy dénk benn benn benn benn kàddu la. xëy na nag mun naa ñu gis-gis wala man ak yenn gars yi yee man rigal bi laay dund loo xam ne lu kenn dul wax man maa koy wax par rapport ak des fois lu kenn dul gis man maa koy gis mais Balla Gaye 2 ku ko wax te waxoo ko jëlal Boy Niang waxoo ko leneen hmm. man personnellement man. papa yaa wax lii. man maa ne man papa Boy Djiné hmm. ku ne Balla Gaye 2 ku waxul Balla Gaye 2 jëlal Boy Niang waxoo ko leneen. maanaam daal ku ko jëlal Boy Niang waxoo ko li ne. lu ne parce que dafay jot. dafay jot si ñoom. ci moment biñ lañ toll nii pour mën a mën a wane seen bopp ci mën nañ ci mag ñi mën nañ ci gone yi ci bii lañ ko war a wane ñun mën nañ ci mag ñi mën nañ ci xale yi parce que olof daan lu wax nee na buur boo ko bëggee doon doo gañe sa dëkk kase dangay boole dëkk yi la war yëpp. gañe fa gañe pour nga mën a yilif ñëpp. mën a yilif ñëpp leer na. li nga wax kay da leer na ni midi. waaw kon Balla Gaye li ko war leen kese la mooy cool yi bari na wax ci bari na moom pour mu wane ne moom maa mën ci fii ci maa mën ci fee day jël Boy Niang ànd si ak waa waaye jàpp ko daan ko parce que la de Guiers moo fi sasoon à part guy gi Boy Niang daan na guy gi daan na Miss Ndiaye daan na Akon daan fi ay ndaanaan ñëw bëri ak Lac de yàlla may na la de Guiers ndam waa Pikine d'accorduñ ci ndam liñ am contre ñoom ak Lac de d'accorduñ ci waaw mais wax ji wax ji wax ji wax ji wax ji waa ji bu fekkee ca buntu jàll sa biir saal non buy génn daa war a daw. maanaam génn bi mu fi génn bi yoon daa yomb. waa dafa yomb quoi. maanaam bi yow bëgg ku ko duma duma wala ku ko daana daan ba. loolu loolu mooy wax ji ñaar moo ci am. neex naa duma wala neex naa daan nag ci ruxu ci ruxu. dafa am benn wax bu ma waxoon ci ci contre moog la de dama ne ko dama ne woon la de guerre maa koy jox kele bi daan booy ñaa. yaa ko ko jox. te képp ku yewoo ikiri waalo rek wala lii nii course ron mun na ko seede wala la dëgër de mun na ko waxal boppam li ma ko wax ak fi ma ko wax moom fi mu jaar moom moo jaar foofu si bërëb bi. looloo indi échec Boy Niang ci combat bi loolu nag mun mun naam du du du du lu lu mu mën man waaye xëy na lu xel bu lu ma yàlla jox la moo ko ko ak lu ma xam ci booy ñaam man bu baax a baax waaw. kon loolu ko bu ko Omar jëlee di nga ko ko jox. non Boy Niang Boy Niang buñ bëre woon mun na làmb ji mun na bañ a yegg foofu sax. Hmm. yow kooku maanaam champion la man taggum tagguma ay Balla Gaye 2. Hmm. du ma géwlam. non non tagguma Balla gay 2 de man du ma géwlu kenn du géwlu benn mbër hmm. man sama bopp laa gëm gëwuma keneen man maay sama champion bopp. ku ma bëgg dégg loolu moo nekk si man ku ma bëggul dégg loolu moo nekk si man mais Balla Gaye 2 li ko yàlla may ci mbër yombul boo koy wër ci mbër nga gis ko. kooku moom mooy doomu Double bu sëggee bu sëggee daan bu sëggee daan waaw daanaan la loolu kay moom du man kese maa ko wax <laughs> waaw mu ngi noonu daal